asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina njabootu sëriñ tubaa xaadim rasul rawatina képp koo xam ne mas ngaa jaar ci loxoy sëriñ saalihu ak foo mën a ne ñoo ngi amaat mbégte toog ci jataay boo xam ne jataayu sant yàlla la waaye waajal ab liggéey muy liggéey ban mbàccum tooli xel koom nañ ko baaxoo amee xel koom ak lu aju ci moom loolu moo tax njaboot gi nga xam ne ñoo lëkkale di fédération bi lëkkale mbooleem donga yi mas a jaar ci loxoy Serigne Saliou ci ndigalul Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ñu toogaat fii ci njiitul Serigne Abdou Ndiaye jëwriñ général ak bokk yi mu ko seqal yëpp ngir waajalaat liggéey bi nga xamante ne bi ajuma vingt 24 novembre moo war a nag départ bi di am ci mbooleem régions yi ak gox yi ak département yi war jëm xel koom mbàcc moomu nag la waajal moo tax ñu toog ak jëwriñ yi fas yéene yëkkati kàddu gi jox ko Serigne Cheikh Jenn mi wax ci turu waa mu yóbbaale ñëpp mu nappe ñu jox ko sëriñ Fallou Guèye mi wax ci turu waa Dakar sëriñ Balisiru Saaxo mi wax ci turu waa Daaru Sakkoor ak sëriñ Abdoulahat Guèye mi wax ci turu waa Touba commission xelkom bi ànd ak sëriñ Abdou Ndiaye jëwriñ mu yóbbaale seeni kaddu moom mi nga xam ne moo yor kaddu jëwriñ général yëpp kon ñu ñëpp ñu maase déglu sëriñ seex Diène. ak ngi wax ci turu ñi nga xam ne ñooy dale Touba xelkom euh, te waa Njaareem di fa dal di ko ànd ak waa Thiès njiital sëriñ Pape di ànd ak waa Mbour ci njiital sëñ Saliou Ñing waa Kaolack ci njiital sëriñ Alaaj Sini Tall eh, di ko fàttali waa gambi ci njiital sëriñ Aliou Cissé ak waa Casamance ci njiital sëriñ Bassirou Ndiaye ak waa Ngaabu ci njiital sëriñ Modou Bousso Ñing ak waa Linguère ci njiital sëriñ maam sëriñ Cissé ak waa Daara ci njiital sëriñ Modou Ndiaye Xasaayit ak waa Pire ci njiital sëriñ Abdou Gora Mbaye ak mboolem ñi muy àndal ñëpp waa Touba ci si njiital sëriñ Mbacke Diouf ak mboolem ñi muy àndal ñëpp Eh, waa Kolda ci njiital Serigne Modou mbay ak waa Kuré Daje ta Kuré waa Kuré eh, Gàtteñ ci njiital sëriñ Alsane Thiam ak waa Kokki ci njiital Serigne Modou Anta Bousso ñu ngi soññ ñëpp di ñaan suñu borom defal la ñu fekkee ko ak jàmm tal ko te am taw feexi tàbbi ci kem sunu tolluwaay kattan asalaamaaleykum wa rahmatulah. gannaaw bu ñu ñaanalee Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké maa ngi woote ci ndigalal Serigne Mor Fall jëwriñu Dakar ak mboolem di ko wër. di leen yëgal liggéey bi sëriñ bi woote ca xel Xelkom départ bi àjjuma la le 24 novembre 2023 di wax ne ñiy dépp ñi jëm Daaru Salaam Maodo Mouride mooy ñiy déparé Colobane kër sëriñ Touba ga di ci woo sëriñ Assane caw Touba di ci woo sëriñ Saliou Sène Bambay Séeréel bu dee ñi jëm Xelkom Daaru Xuddos Daaru Muhin ñi ngi koy euh, mooy ñiy déparé Asalem raay ba di ko fàttali waa Louga Ndar Nomboor Mboora ak la ko wër di ko fàttali mboolem transporteur yi sëriñ Abdoulahat Ndiaye di ko fàtte numéro bi nga xam ne nag képp ko xam ne bëgg nga ñoo jot ci xam dara ci liggéey bi mooy 77 143 21 21 waaleykum salaam wa rahmatulah. noo ngi soññee ci turu Serigne Souhaïbou Ridwane Ndoye mbokk yi nga xam ne ñoom la baaxoon daan àndal liggéey bu dee lu wàllum Touba ak li ko wër Xelkom Darou Salaam daari diis foofee la ñu dal bu dee gis bu Serigne Samba Diaw ak waa Daaraam ak mboolem fédération yi muy àndal ñoo fay dal bu dee Lagane Serigne Abdou Lahad Mbacké moom Serigne saali Njurul ak sëriñ Bada Fall moom sëriñ Dame Fall moom sëriñ Saliou Fall ak sëriñ Assane sëriñ Thierno Diop Lagan sëriñ Moustapha Sarr Ngédiane sëriñ Mor Sona Njurul euh, ak sëriñ fallu Kanji Darou Manaan ak mboolem waa tund way nga xam ne daanañ ko baaxoo ànd ak ñoom. Touba Salaam sëriñ Moudou Mor Mbacké dana fekk ci sëriñ Moudou Diop moom sëriñ Cheikh foofee ca Darou Salaam Maoda ak ñi nga xam ne it daanañ ko baaxoo àndal waa daaraam ay taalibeem ak ay wëllëreem ak ay xaritam mbokk yi loolu mooy liggéey bi. kër Serigne Saliou foofu la ñuy départ ak kër Serigne Cheikh ñi nga xam ne bëgg nañ ci ay leeral te seen xalaax ak waa Touba rafetoon lool ñu daan jox ay oto wala lu jëm ci wàllum gasoil ak ndimbal loo xam ne rek mën naa jëm ci liggéey bi bu ñu jokkoo ak Baye Sidi ci numéro yi dana leen ci indil ay leeral incha allah rabbi 76 335 74 35 wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. suñ Touba ñu ngi wax ci ndigalu sëñ Xaadim Seck muy soññ waa ñuy aju ci waa Daaru yëpp ci ndigalu sëñ Bass Xalxom ak sëñ Modou Dieng ñu ngi soññ ñëpp di ñaan ñëpp te ak si jàmm ak salaam suñ xaalim sekk moo ci yebal ne nañ woo ñëpp daal ak daayira soppe yi bawun kenn na ñëpp ñëw te ànd ak jàmm ak salaam. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ñu ngi wax ci kilifteef ak sëñ Moustapha Guèye waaw bisimilah leen di sant di leen gërëm di leen soñ ci liggéeyu Xelcom bii nga xam ne ñu ngi wax ci turu sëñ Moustapha Guèye li nga xam ne moo waral ndaje bi nag mooy bàcc ak diri ak roñ ko loolu nag daam jumtukaay yoo xam ni moo ko war a waral lu jëm ci xottu saako ak fourchette ak râteau ak i bàccukaay loolu moom lañu fay soxla ci daara ja ak li bépp jumtukaay boo xam ne nii dong dana ko yittewoo ci àll lu mel ni baas ak i parla dañ ko fay yittewoo mm. ginnaaw bi loolu jàllee tamit li nga xam ne moom la ñuy soññee mooy suñu mbokki transporteurs yi ñu ci jiital sëñ Abdou Lahad Ka nga xam ne moo jiite commune Touba bi te bokk ci jëwriñ sëñ Saliou yi ndax kër sëñ Abdou Lahad ak kër sëñ Saliou benn la ñu ngi ciy jiital tamit Mbaye Touré ak Abdou Lahad Ndiaye ak Omar Badiane ak Cheikh Dieng ak Mame Thierno Ndiaye ak Baye Ndiangasar ak Baara Lo ak Baara loo ak Baara Silla kenn ku nekk ñu ngi lay fàttali di la soññi ci li nga liggéey bi nga xam ne daa nga ci jàpp at mu jot ñu ngi koy fàttali tamit sëñ Moustapha Dia ca Dakar Sipa di sama wóolëre den daan jàpp ci liggéey bu wér-wér lépp nag ñu ngi ko def ci kilifteefu Serigne Cheikh di ñaan ñu àgg ci jàmm te ak te mottali kook jàmm ci ngi koy fàttali moom Serigne Ibrahima Touré ñu ngi koy fàttali di ko soññu ci baax a baax ñu ci liggéey bi ku ci a def gaasuwaal tamit na tamit oto yi ñëwee ci buntu kër sëñ bi danañ ci def wa rahmatullah ñu ngi woote ci ndigalul sëriñ bi nga na xam fàttaliku nit ci bis baax na lool waaye fàttaliku nit ci bëggam moo tax mu ne gàmm ak xel koom ku xam sëñ Saaliwu xamee nga ko moo tax mu ne bu gàmm jotee wala màggal day tëju këram ñëw ba fii ngir am barkeb màggal ak gàmm ak fàttaliku sëñ Saaliwu nee na nag xel koom moo ni siyaar baag yëpp nañ fa daje xel xelkom mu doon fàttaliku doon ak ñaan ak liggéeyi ma ngir ñàkk jariñu loole la ñuy woo ñëpp depart bi nga doon ajjuma dañoo bëgg bu ñu xëyee ñu teel a dem tem te teñ tënku ci li mu wax nee na kuy dem bàyyil sa aaday dëkk te boo tamee nga tënku ci aaday daara jafa ne liggéey bi ab lal la ci woote comme dañuy dem di def ak bëggam gerte ga kenn du ko barkeeloo nañ teqali gerte ga ngooñ ma far barab ba ba mu set ñu ngi ci wow mbalam ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew am na ba matériel yu ñu war a liggéeyee loolu ñi jiitu wax nañ ko wata yaag gaasuwaal baag yëpp tamit ñi ngi ubbi numéro bii nga xam ni mooy numéro maj ma honoré ni muy 77 310 02 02 numéro boobu mooy ñi yore maj ma honoré moom lañ yor muy Fallou Ndiaye ak Bassirou Ndaw ak Abdoulaye Diop ku ci tàbbal soo ñàq danañ ko jariñoo waaye ñu ngi woo ñëpp ci ñu ànd xam ne li ñu sëriñ bi digal du dara rek lu dul jëlu jëlik pay ñu ngi ciy jiital suñ jëwriñ yi nga xam ne lu nekk ñun ñoo ko def ci ñun daal di jiitu giñ jiitu ngir doxal leen seeni soxla la waaye du ñoo leen di tuddali doom wala ñoo leen di jiite ci julli loolu loola ñoo ñu ci jiite ba tey asalaamaaleykum wa rahmatullah woote ma jóg na jóg takku jot na te jëm ca war na ca tool yi xel koom woote na jóg jot na jëm ca war na ca tool yi xel koom murit bu wér man talaq kàttan na wuy ji kayitin ña jëm ca xel koom laxasu waajal ngir dem ca ñaqal sëriñ ba xaasal ña jëm ca xel koom laxasu waajal ngir dem ca ñaqal sëriñ bi xaasal ña jëm ca xel koom